pouvoir euh, ak opposition du yomb au vu de ça. ndax bëgg a fay ñoom li ñu nekkee parce que nee nga su doon ni teeloon nañu communiqué ñii duñ naan doon tal leneen lu dul. li nga xam te moom la nekk di def waaw waaw moom laa wax waaw léegi la fekk mu yëkkati ko war a wax ci biir semaine bii nii nii génnee njombe yi nga xam te ñoom ñi fi nekkoon def nañ ko c'est une manière de leur dire non non dis pas ça comme ça ah, euh, mel ni kuy ay njombe waaw waaw oui l'opération ce n'est pas opération de xalab mais ne situation bii lañ fekk réew mi c'est ça sénégalais bi xam ne donc kii dafa hérité dëgg-dëgg situation bu catastrophique sur le plan économique alors donc il faut non seulement redresser euh, la barre mettre le Sénégal sur le rails pour mën a développer ba yegg ci euh, vitesse de croisière yombul yombul parce que euh, seeni prédécesseurs facilité wuñ leen euh, la tâche. Hmm. bu leen neexee nag. ñuy takk rajo lu nekk ñu koy wax mais ñun sénégalais xam nañ par rapport ak le vécu quotidien de sénégalais lan bonne situation lañ nekk léegi nag loolu expliquer ko avec des données chiffrées. mu leer léegi gaa xam nag ne euh, maintenant wéy euh, nañu dellu ci raay du développement nañu redresser la barre nañu avancer ba ba ñuy jot vitesse de croisière parce que c'est possible. impossible n'est pas sénégalais mais loolu lu impérativement euh, loolu dafa war a am parce que en deux mille le président Diomaye daf naa ñu fii laa leen tënee fii laa leen yóbbu kon donc moom foog mu wax ñu état des lieux bi mu fekk pour euh, ñu mën a ñu nit situer sa responsabilité en 2029 loolu impératif la. mën na expliquer entre autres ñi nga xam te ne tere nañ leen génn. non impératif aussi am ñu ñuy tàmbalee convoqué. non mën na expliquer ne xëy na ñoom ci état des lieux bi am nañ une idée ci. ñoom ci seen wàllu gestion. non xam tere leen a génn non ki def kay moom moo la njëkk a xam li mu def. Hmm. oui tu auras tenté de maquiller beaucoup de choses et mais yow mi def yoo xam nga li nga def te man dama jàpp ne les mesures euh, conservatrices yi ñu jël pour man dañ koo yéex a jël aussi. Hmm. le premier ministre a dit que am nañu la jot euh, a génn. waaw mais bu ñu ñëwoon le vingt cinq mars. vingt vingt quatre mars la ñu fal président Diomaye si ëllëg sa ñu ne bu kenn bougé kenn du rëcc ki ñooñu rëcc noonu lan lañ rawale bon rëccu guñ sax ah parce que mooy loolu mais état am na obligation wu fu ñu mënti nekk ñu delloo si leen waaw noonu la ko waxee su jaree tirer les oreilles sax euh, état am parce que c'est du de l'argent du contribuable sénégalais dont il s'agit ce n'est pas de l'argent de Ousmane Sonko ni du président Diomaye sénégalais yi la te ñun baale wuñ loolu soxla nañ ko di am na fu mu mën a dugg voilà donc kon fépp fu mu mënti nekk moyens yu mu mënti jaar parce que bul fàttee euh, la traque euh, cette traque des biens mal acquis du président Macky Sall finalement ça nous a apporté combien zéro franc donc il faut ñu allier euh, efficacité c'est-à-dire euh, rapatrier lépp loo xamante ne muy euh, xaalisu Sénégal mais aussi rapidité par rapport à ça parce que lu muy gën a yàgg preuve yi di gën a effacé wu ñenn ñi di gën a euh, kii donc il faut que ñu allier rapidité et efficacité léegi nag lan la récupérer xaalis bi ba pare. Hmm. waaw boo récupérer it ña nga xamante ne tamit euh, jëloon nañ moom am gëmuma dans cette affaire là ay question de médiation pénale gëmuma ko ci waru cee mën a am. parce que dafa am ay sénégalais yoo xamante ne tey jii nii boo demee Rebeuss fekk leen fa pour euh, histoire de ginaar wala mburu am déet les ces la là on de million et de milliards woy médiation pénale nañ na loolu loolu loolu lu fi am te waru fi am képp koo xamante ne moom saa jël nga fi alalu askan wi danga koy goxi te it sanction yi war dañ la koy def de la manière la plus dure possible ne serait-ce pour mu dissuasif mais tamit plus jamais ça il faut que c'est-à-dire la sacralité de l'argent du contribuable foog ñi ñu diriger xam ko c'est très sacré Sénégalais bépp secteur d'activité yëpp ak secteur d'activité yi ni mu mettee ci Sénégal génnal Dakar xool nit ñi lu ñuy daj dem naa Tambacounda gis ñoo xamante ne maanaam ci carrière yi la ñuy nekk di daaj ay xeer pour di ko génne yóbbu jënd ceeb dundal seen njaboot ñooñu di dajale seen i dërëm ak seen ñaar dërëm yow nga bëgg ko ne tungaañ noonu mu jeex mun munul nekk loolu ce n'est pas possible. léegi soit transmis yi nga xam procureur de la république jot na ko def ci li nga xam moo am rapport cour des comptes IGE IGF ba ci rapport Prodac bi suite bi lan la. non soit transmis yooyu. mooy soit euh, session de recherche c'est pas. session ouais. de recherche ak di. dikk waay. waaw bu ñu defee soit transmis jox procureur maanaam daanaka ñoom euh, pare nañ seen enquête. Hmm. léegi euh, bu ñu paree ñoom dañ koy jébbal ki nga xamante ne moom moo leen yilif ci wàllu enquête bi le procureur bul fàtte ne c'est le maître de l'opportunité des poursuites alors donc moom en toute responsabilité parce que dossier yi euh, selon ci reddition des comptes dossiers yi bokkul am na ñoo xamante ne pôle financier mën na gérer seen cas. waaye mais am na ñoo xamante ne dans l' exercice de leur fonction s'il s'agit de ministre foofu du pôle financier. déedéet c' est la haute cour de justice. te haute cour de justice boobu amagul. amagul voilà bu boobaa assemblée moo koy teg. oui mais ana parce que mën a àtte euh, un ministre dans l' exercice de ses fonctions. on est d' accord am na yoo xamante ne ce sont des plaintes oui euh, le ministre Aliou Dione dafa déposer une plainte contre Diégui Diop. xam nga donc procédure yi euh, bokkul ci. Euh, ci kaaw Abdoulaye Seydou Sow parce que gis nañu dafay dem ñu téye ko. waaw ah. te moom il a été ministre. waaw ah. ci kaam laa wax bu fekkee ni moom. dafa bokk bu fekkee ne lii amaguñu. amaguñu waa juridiction boobu nga waxaguñ ko ne. yaa def wala defoo defoo waay. toogal xaar mais toogal xaar léegi nag dans ce cadre là li li nga xamante ne moom moo lié à des infractions ci kaawam. Mhm. dafa nekk dans l' exercice euh, de ses fonctions de ministre. loolu haute cour de justice rek moom moo ko mën a àtte. day xaar ba ñu judd judd loolu ci cour de mais parce que haute justice boobu noonu moo tax euh, assemblée nationale li ma leen di wax ma leen koy wax rek ah. parce que ñoom dañ seen règlement intérieur dafa leen ne impérativement diir mu mënoo leen ko toog te tegoo leen haute cour ba léegi defuñu ko ñoom léegi bu ñu dissoudre cette assemblée haute cour de justice amatul beneen le temps que ñuy taxawal beneen assemblée ak yeneen yi nga xam ne moo ci war a topp yépp day toog xaar léegi bul fàttali ne bi ñuy dissoudre assemblée. ak bi ñuy demaat élection weesuwul trois mois. waaw bu weesoo trois mois yi. le temps que ñuy toog ak euh, yenn yi ñuy voté euh, bay mën a teg une haute cour de justice. naka la ñuy defandeegum. Euh, ak ñi nga xamante ne. peut-être jox nañ seen i dossier boo leen yóbbee ci beneen juridiction la juridiction va se déclarer incompétente déjà ñoom li boo leen yóbbee ci beneen di juridiction rek. Mhm. li ñuy njëkk a def def exception d'incom d'incompétence Euh, d'inconstitutionnalité puis euh, non exception d'incompétence c'est-à-dire un ministre dans l'exercice de ses fonctions boo ko yóbbee pôle financier dañ la kooku munu koo àtte bu boobaa euh, bu ñëwee exception de nullité la yóbbu. mu léegi en attendant nga koy téye pour temps waxoo ko def naag deful. Mm-hmm. doo entraver libre circulation. non mais actuellement nii. gars yi téye nañ de. teew dafa ñëw rek ñu ne ko dellul sa kër. oui loolu laa wax. waaw doo tëjuñu ko dellu sa kër rek te xaar. mesure ko voilà du yaa def nag du defoo it. <laughs> donc waaye demoo fenn. waaw compromettre lenn parce que munoo gérer autant de temps aussi te doo rendre compte. ce n'est pas ah, possible am lu mu compromettre parce que moom dafa am ay responsabilités taxawoon mu waroon ànd ak équipe nationale génn. waaw mais grawul est-ce que tere na équipe nationale euh, jouer. est-ce que c'est ça la question. mais c'est ça la question. Mm -hmm. euh, madame la ministre Khady Diène elle est là-bas ses services sont là les autres sont là ma xam naa ne euh, par exemple Mamadou Gueye. Euh, justement moom it demul euh, président AS Pikine. waaw waaw mais moom it na dem parce que dafa nekkoon directeur des domaines tamit. oui. on peut pas gérer sans rendre compte ce n'est pas possible du tout. voilà léegi nag li doon li doon li doon li doon gênant par exemple mooy ñu mettre la en Euh, te gi loolu loolu moo tax ma gis nga euh, le président Macky Sall loolu moom moo ko kiiwal yu bëri la la preuve vingt cinq euh, personnalités yu mu kiiwoon après fan lañ mujjee ak moom conseil table conseil des ministres ak moom. Mm-hmm. dinaan ataay ñoom Omar Sarr la woon non. dëgg la. kan moo doon su poursuivre les vingt cinq là le ministre Antoine Diome qui était substitut du procureur spécial. ndaw mm -hmm. qu'est-ce que du tout looloo tax tamit affaire bi di si dem ak mesure. jël lépp teg ko ci légalité. léegi ñi jot a génn nga xamante ne. Euh, ñu ngi naan ñii dañoo daw wala. maanaam waa seen seen i dossier bu ñu ko ubbee naka la ñuy procéder ak ñoom. mais mandat d'arrêt international est là waaw am na ñoo xamante ne dawuñu waaye peut-être seen alal a ngi bitim réew waaw. commission ah. d'enquête rogatoire yi génn. loolu mooy pour judiciaire bi ah euh, fépp kay. c'est mm-hmm. possible ci ñëpp. bu dee bu dee yow ministre nga woon. haute cour de justice mën a def yooyu yëpp. man mandat dara international fépp foo nekk si àdduna bi ñu meeb la andi. xanaa nag yow nit bu amee tuuti tuuti tuuti jom ñu ngi lay wër si sa réew wax dëgg yàlla xanaa di nga ñëw nag bu dee jàpp nga ne defoo waaw bu dee leeral yaa def nga taxaw nag def sa mea culpa ne daw naa. Mhm. Ah, waaw baax na. d'accord mais en tout ñu loolu yëpp moom. parce que waaw gars yi bañ leen waree bañ leen waree tëjal frontière yi dafa yàgg de.